vague de libération bi nga xamee ni jamono ji am na ci Sénégal détenu politique yi nga xamee ni jàppoon nañ leen ay ndaw ëpp ci xam ngeen ni jamono ji ñu ci bare bari si ñoom libéré nañ leen seen bës di am jotaay ak kenn koo xam ni ci détenu yi nga xamee ni jàppoon nañ leen tuumaal leen ay manifestation ak ay trouble à l'ordre demee noonu ba jot ko ci tëj kaso lu toll si juróom ñaari weer mu bokk si ñi nga xamee ni évidemment nañ leen ci libération yi nga xamee ni jamono ji ñu ngi koy amal ci réew mi moom la seen bës di am ak jotaay muy ndaw boo xam ni Cheikh Fall la tudd Cheikh Bara pour commencer Cheikh Fall waa seen bés ñu ngi lay nuyu di la masawu coono bu baax a baax ci li nga xamee ni dund nga ko di la gërëm ci jotaay bi. maa ngi leen di fay. baal ma yëkkati micro bi rek wax nga. maa ngi leen di fay yéen waa seen bés. jërëjëf di kontaan ci yéen tamit di rafetlu taxawaay bi fii rafet na trop macha allah. jërëjëf. alors Cheikh Fall maa ngi koy wax léegi bokk nga ci ndaw ñi nga xam ne dañ leen jàppoon tuumaal leen manifestation gi ci aju ba jot leen a tëj lu toll ci juróom-ñaari weer pour ma dugg ci waxtaan bi mën nga dikk ak man ci fan lañ la jàppee ak nañ lañ la jàppee. man maa ngi fi xëy nag euh, jour booba ay suba teel. Mhm. après dem doxi samay soxla ba pare. yëkkatil micro dem doxi samay soxla ban jour la. Euh, jour lundi mooy jour bi ñu mandat dépôt Ousmane Sonko. d' accord. après Ouest Foire laa nekk ànd ak sama benn xarit léegi bi ñu dikkee ba Ouest Foire sama benn xarit daan may woo na ma alu mbër mu ne ko waaw mu ne ma mandat dépôt noonu sa waajir ma ne ko kan mu ne ma Ousmane Sonko ma ne ko non loolu mënut a nekk. foofu tamit dama ne ko Ousmane Sonko ci biir kaso ñun ci biti loolu mënut a nekk non loolaa ko tontu ne ko waa baax na ok. Mhm. daal di coupé léegi sama waajoo moom it ñu daat koy woo ne ko mandat dépôt na Ousmane Sonko moom mu daal di tiit na ma xaaral ma jënd benn canette fii. Mhm. naan ko après ñu dem fiñ ñu jëm fekk daa am benn kër buñ demoon ñun. d'accord léegi bi ñu duggee. bi ñu egsee ba ci buntu kër bi ñu toog. Mhm. egguñ jiguñ sax kër gi dañoo egsi ni toog ni. baal ma jegeel micro bi sa loxo rek s'il vous plaît jegeel micro bi yëkkati yëkkati ma ko ñuy léegi sa waay di naan kanet ma sëgg sama téléphone di sësëy li do am naa lu ma naqari ba mënutumaa def dara. d'accord. ci lañ jékki-jékki rek seen gars yi romb ñu ma sigg xool leen ñu dox dox dox ba jeexal mbedd bi embuscade ko ñoom policiers yi. waaw d' accord dinaa ñëw ci loolu moment bi ñu lay jàpp certainement euh, fekkoon na yaa ngi yëngatu ci dara euh, ci lan nga daan yëngatu maanaam lan nga daan liggéey. man ci dama ne booba commerce la presse laay jaay. da ngay ambulant wala da nga yor place. non damaa yoroon place foofu. Petersen di liggéey jamono jiin lay jàpp yaa ngi yor sa liggéeyu bopp. di liggéey waaw boobu bopp di ko euh, liggéey naaj di ci gis sama bopp. d' accord alors muy mois de août 2023 bu ma juumul si lañ jàpp Ousmane Sonko. waaw nga demoon di doxi sa soxla fële ca Ouest Foire. fi nga toog lañ la nga gis oto police ñu romb yeggale la. léegi ñoom ci lañ ñu romb ñoom police yi dañoo wàcc dox. est ce mhm. que embuscade mbedd mi biñ ko embuscadee ñeneen daal di ñëwaat embuscade beneen mbedd mi nga xam ne tey ñun fekk na dañ doon daw duñ mën a buuse ci lañu gaa yi ñëw fekk daal dugg ci biir fekk ñu toog ñu daal di ngëpp sama loxo man leen lu xew ñu ne ma jugal daal di téye beneen gaan bi ma àndaloon sama gaan boobu daal koy poñe moom dañ ko poñe ci laa seen waa ji dóor ko ci kanam après man kenn ki mbeñ ma hmm? bi ma mbeñee ñu taxaw foofu xaw a fipponte xataraayoonte xam nga ñu daal ñuy jiital yóbbu ñu ba ci benn taxi li ma gën a jaaxal. Mhm. génn ñu biir bi soroor yóbbu ñu fi ba ci benn taxi. ñu woo safar bi safar bi ñëw ñu ne ko nax ñii ñoo euh, xàmmee nga ñii safar bi neen bàyyi leen doomi jàmbur yi ñu dem ñi taaluñ sama oto ñi taal mhm. sama oto xam naa leen ñu daal ñuy jël daal ñuy dugal ci oto bi daal di ubbi suñ bët yii bii yii mhm. tóor ci liquide bi ñu sotti woon Ousmane Sonko ba muy xam ak boobu lañ ñu sotti sotti ñu ko ba mënuñu gis man dama ne wuy sama ndey samay bët yàqu na wóor na alxuraanu karim ak ñaari booy yu fa romboon doon ñu nuyu ñu jàpp ñaari boy yooyu tamit encore boole ñu dawal ba màngo ga romb fa. Mhm. quatre personnes jàpp leen indi ñu. Mhm. ba foire jaaxaanal ñu di ñu dóor. d'accord Cheikh bala maa ñëw si loolu maanaam euh, yow bi ñu lay jàpp non seulement côté bi nga nekkoon amul woon manifestant yu fa nekkoon maanaam nekkul woon zone boo xam ne ñu dañ doon manifester. terewul jàpp nañ la jàpp ñeneen ñoo xam ne tamit yow jàpp nga ni moment bi ñu leen di jàpp ñoom tamit manifesté wuñ leen romb rek ñu taxaw waaw ndax euh, ñun zone bi ñu nekkoon mhm. booba dara amu fa foofu yoonu suuf la d'accord yoonu suuf mhm. yoo maanaam mbedd yu am suuf comme suñu mbedd mii nii mhm. xam nga foofu kenn do kenn do fa taal pono maanaam sagar xëy ñu fa mais dañoo génn ba ñu fekk fa benn taxi buy tàkk ñu ñii waaji neen bàyyi leen doomi jàmbur yi ñu taaluñ sama oto. pour coller leen motif. waaw mhm. léegi yeneen booy yi ñu jàppaatoon ñoom it. booy yooyu defuñu dara. ndax ñoom bi ñu leen jàpp fi leen jàppee boobu ma ne fa saa amul dara am fa. dañoo dawal ba romb booy dóor ay bal. Mhm. booy taxaw ñu wàcc dàq booy jàpp leen andi leen. ñu nag ñoom lañ boole andi foire. d'accord alors yaa ngi koy wax bi bi ñu la jàppee bëgg laay dugal ci oto bi ba romb borom taxi bi ni bëgg leen ak accuser tort ni yéen taal otoom borom taxi bi bañ loolu ndax bi leen dugalee ci oto bi ban façon jëflante les la takk der yi am ak yéen foofu bi ñu leen dugalee ci oto police bi. dóor yi amut fenn. dañ leen di dóor ci dañ leen doon dóor ci oto bi. ñoom dañuy dóor ba mujj yëgatuñu ay dóor ndax booba laa ëpp nii ma toll. mais dañuy dóor a dóor a dóor a dóor a dóor a dóor a dóor a dóor ba mujj wóor na alxuraanu karim dóor yooyu maanaam tëdd naa rëbës mais dóor yooyu moom a gën a naqar ci àddina ndax man góor mosumay dóor te fayuma wóor na alxuraanu karim ñi ma xam ñëpp sama grand frère yi di toog ñëpp ak sama rakk bii nii man góor mosuma dóor te fayuma man ku ma woo ku ma xori la mm-hmm. mais loolu ma gën a métti sama àddina dóor yi métti ba commanda bi daw wàcc foofu nag xaw naa dawal yërmande. te si biir oto bi lañ di dóoree ba ni ngeen di yeggee foire. biir oto bi lañ ñuy dóoree ba ni ñu egsee foire. ñu continuer di leen dóor foofu ba tey waxum ko sunu waa ñu wàcce ñu bi ñu benn dàllu plastique benn booy bu solon plastique aw dàllam lañ summi ndax boobu pompa nañu gaas bëgg suñu. Hmm. ñu di ñu wàcc oto bi ku wàcc maanaam plastique bi day dal sab nopp te doo ko yëg doo xam ne ñu ngi lay dóor da ngay jékki-jékki rek encaissé plastique bi pang. dugalaan ci benn ndox ti ñu foofu jaaxal di ñuy dóor ci ay awra. di leen dóor si awra. ay awra dañoo dóora dóora dóora ba dóor ba nootu ñit ñu daan ñuy dugal ñu daan ñuy ñu daan ñuy dugal ci biir giri bi bi ñu dugalee ci biir giri bi. Mhm. li ma ci gën a jaaxal ñu dellu si waat daal di wàccewaat sama beneen gaan bi wàcce ko ci suuf ci kaw laa toog. Mhm. wóor na alxuraan damay dégg yuuxu yi di dégg yuuxu yi sama yaram di daw may dégg yuuxu yi. dégg yuux yi ba sa waay mënatumaa dégg yuux sa waay ñu yéegal ko mais jàmbaar la quoi. Mhm. gaan boobu. Mhm. yéen lañ jàppandoo sama toomaa la. ok ñoo àndoon mais jàmbaar dëggan ko wër na alxuraan xaw ma na maa jaar ci bi nag. Cheikh Fall. Mhm. moom lañ jàppandoo Cheikh Fall Réfane ndaanaan dëgg nga noonu dañ ko dóor a dóor a a dóor ba man mënatumaa dégg yuux yi mu yuux ñu yéegalaat daan may wàcce man encore. jël seen wàll ba doyal. maanaam même bi ñu leen yóbbee ba foire ba yéeg yéeg dugal leen ci violon bi gannaaw gi da leen doon. wàccee génn waat. kenn par kenn di leen brutaliser waat foofu. ñun ñaar kese nag. ah yéen kese lañ. ñun ñaar kese lañ fi jot a def loolu. lu tax loolu lu tax yéen ñaar kese. ah mais xañ na dañoo xool maanaam ak suñu gabare ak nuñ toll xam naa ñu yaakaar ne ñun ay defkat lañ wala yooyu te fekk ñun loolu nekk suñ kii suñ suñ bopp. amul xuloo wala waxante bu am. seen diggante non non waxantuñu ak ñoom dara mais nag ñi ñuy jàpp duñ waa gendarmerie foire élément GGN ñooñu jàpp te ay nervi da caa rax. Hmm. waaw ay nervi ay nervi lu tax nga jàpp ne ay nervi dañ cee nax ñëpp dañoo dañoo solul ay tenue wala. non ñun ñi nga xam ne tey ñoo dox ba ambiskaan mbedd mi. Hmm. ñooñu soluñu ay tenue te ay ponkol lañu. ñu duñ duñ ay gendarme duñ ci waa GGN. ok mais waa GGN après ñoom ñoo ñu dugal ci oto yi. jébal ñu gendarmerie fort mm-hmm, mm-hmm. avant commandant bi ci ñun ñoo ñu ñu jàpp ñoo ñu doon torturé yooyu torturé d'accord waaw bi commandant bi ñëwee moom certainement yëg na torture yi war a fekkee na torture torture yi nga xam ne mi ngi doon am wala commandant bi mu dawee ñëw mm-hmm. moom ndeysaan dafa egsi daane bu leen bu leen bu leen ma andil problème bàyyi leen ñii daañu encaissé moom moo ñu yëgal ci kaw moom moo leen yëgal ci kaw dugal leen ci violon bi d'accord d'accord alors ban ban traitement ngeen am ginnaaw bi nga xamee ni dugal nañ leen ci ci violon bi ah dañ ñu fu bari yoo téye ñu fa une semaine guddi gi suñ tëddee duñ nelaw yooyu di ñu bëgg rey ndaysaan am na benn chef bu fa nekk ku baax jëru may tudd turam. Mhm. mooy daan jëndal garab yoo ñëw di ñu ko taalal di waxtaan ak ñun mais am na ci ñoo xam ci ni tamit kooku moom daraan ñëw di kajj booy yi rek ba benn booy bi dañ ko man soo ma kàjjatee ma xaru mbëkk miir bi dee ca la doog a bàyyee. Mhm. nga bëgg dem toilette. Mhm. ki monté su nekkee ku baax du am problème mais gendarme bi moom macha allah wax dëgg yàlla. Mhm. ñu baax nga fa nag. waaw d'accord yàlla rek ma tax di wax. Mhm. Mhm. d'accord alors juróom-ñaari fan nga def ko fi li nga xamee ni mooy gendarmerie foire ñu garder la fa war la def li nga xamee ni mooy dañ lay jébal kii di juge bi mu war a décider li muy décider ci yow ndax juróom-ñaari fan yooyu noonu yaa ngi doon am yaakaar ni dinañ la bàyyi wala ci mbirum yoon lan lañ la doon lañ la doon waxtaan nag yow foofu. waaw si doon na am yaakaar pour nag ndax damaa xam ne nit soo ko fekkee mu toog defut dara nga jàpp ko ci ay tappaleeki caaxaan man yaakaar na ni ko bàyyi sama sëriñ yebal na fa rakkam muy kilifa bu mag maa ngi koy nuyu sëñ Sidi Mbàkke bu Dar Salaam mhm. sonn na ci man trop ba mu yebalee rakkam rakkam ñëw na fa sëñ Abdou Baaxe mhm. commandant bi da koo gàntal ni ko dossier procureur jot na ci mhm. ndax ñoom dañoo taal oto ma ne bàyyi baaxe mu naa ma ne ko loolu amul fenn loolu du dëgg d'accord taaluñu d'accord beneen bi mooy bi ñu yóbbu bi jour bi ñuy yóbbu. Mhm. di ñu yóbbu tribunal. du ñu yët procureur. Mhm. ba ni may wax yow teguma procureur bët. kon nan nan la defar defarlee lii di mandat de dépôt. mandat de dépôt. Mhm. juge Mamadou Seck moo yor sama dossier. moo yoroon suñu dossier ñun. ñun bi ñu egsee suñu avocat yi ne juge du Seck moo yor seen dossier laa ne gars yi kaso lañ jëm. waaw lu tax nga xalaat loolu. non du baale. lu bokk ci Ousmane Sonko du la baal. te man sa la faire dama dama dama dama faire ci Ousmane Sonko dama ko bëgg kafuma ci réew ma ci. te ma bëgg tamit réew mi bëgg Sénégal. d'accord alors balaa may ñëw si li nga xam ne mooy mandat dépp bi ak li waral ñu ñu tëj la fële ci rëbës lu mat juróom-ñaari weer ndax euh, commandant wala enquêteur bi nga xamee ni moo la waroon a enquêter pour xam lan la la yoon di toppeeku yooyu ngir jébbal loolu procureur loolu jot na am wala. waaw enquête nañu. waaw bi ñu enquêté enquêteur bi daan ma la yokkal duma la wàññil. ma wax ko li am. Mhm. wax ji soriwul dañ ma fekk ma toog ñu jàpp ma. Mhm. tortiré ma andi ma foofu laa yem ak moom. mu ne la lan. mu gëstu laaj laaj laaj ma ne ko loolu la foofu laa yem ak enquêteur bi. mu bind. jour bi ñu waree defeere lundi lañu ñu war a defeere ñu mhm. dem. dimanche trois heures du matin lañ ñu yee. kaay leen signé benn booy jarbaatu Abdou Karim Diop jarbaatam lañ ñu jàppandooloon. booy bi ñëw daal ne dossier beneen bi bu leen ko signé. ndax lañ ca def beneen dossier bi. waaw boobu lan la lan lañ lan moo nekk si dossier boobu. association de malfaiteur. association de malfaiteur. trouble à l'ordre public. Mhm. Euh, manifestation bu ñu autorisé wut. Mhm. dox di xooqatal nit ci mbedd yi. Mhm. di nangu seen alal. agression. waaw si. jour balaa njëkk a dégg terroriste. mais ce qui est bizarre mooy mooy. Euh, terroriste bizarrement ñi ñi ñu jàpp si manifestation yëpp loolu la leen loolu ñun suñ dossier dafa diisoon kan am na ci boo yoo xam dañoo tiitoon bay jooy ne ñun duutu ñu génn kaso mais ma ne booy lu yàlla neen la fii yàlla rek a fi nekk. d'accord d'accord donc ce qui ni bi nga signé papier boobu rek ginnaaw gi lañ leen yóbbu fi la nga xamee ni mooy mandat dépôt. waaw ci la ñu yóbbu ci la ñu yóbbu tribunal. ñu egg def recours de parquet central tribunal. Mhm. une semaine Babacar Diop moo ñu doog a mandat d'accord très bien alors yaa ngi koy wax du du yow rek lañu jàpp noonu am na ñoo xam ni ñeneen ñoo xam ni yéen a bokkoon moment bi ñu leen di jàpp ndax ñooñu am na si ñoo xam ne vraiment moment bi ñu leen jàppee ba ñu nekk euh, fële nga xamee ni mooy garde à vue par exemple am na ci ay nit ñoo xam ne amoon nañu ay blessures wala ay métiers yoo xam ni ñu ngi doon dund ak moom moment boobu. ñi ñu fa mujj andi. Hmm. mardi mardi ñu fa mujj andi ñun 14 personnes lañ boole. kenn ki daa xëy ñëw di porter si plainte dimanche ku ko doon woo di ko menace de mort. ñu xool téléphone bi gis ci groupe Pastef ñu jàpp dugal ci biir kooku lañ defoon terroriste bu mag bi ne ko yaa yaay financé booy yi te kooku yàlla xam ne ni xolal jour boobu laa ko mas a gis xaw ma woon sax lu mu def xam nga ban jour laa xam. Mhm. la xam li koy toppee. jour bi ñu waree defee rek boole ñu ay monot jour boobu laa doog a xam ne mooy loolu. d'accord yeneen yeneen gars yi mujj andi. Mhm. ñooñu dañ leen a dóor a dóor a dóor ba kenn ki dañ koo damm. du ma jaar ci turam dañoo dañ koo damm dañoo damm loxoom kenn ki nee na moom bi mu duggee ci oto bi ñu ko defloo nii ci lañ jël paaka jam ko ci loxo yi jam ko ci loxo buuj ba ni muy dugg cent mètres ñii seen yii carrière mhm. yi mënuñoo toog tëdd la ñuy ku say mbokk seet si da jooy ba dangay jooy ba tas jëf métti joo xam si muy lu métti waay muy lu métti bul bul bul bul xam. d' accord alors bi ñu décidé ni finalement dañ lay déférer dañ lay yóbbu fële nga xamee ni mooy euh, rëbës wala 100 mètres mandat dépôt par exemple noo dundee moment boobu. non moment boobu moment bu doy waar ndax euh, bi ñëwee juge bi daan ma lii lañ lay toppee ma daal di yër gis benn kayit ci biir dossier ñu foto benn camion. Mm. dugal ko ci bu tàkk. ma ne juge bi mun naa ma ne ko kayit bee nee naa ma ne ko lan la mun na ma ci affaire la bokk. ma ne ko camion bi xam nga benn bis la ko la ñuy jàpp ko lundi. Mhm. mu ne ah na kon dañ leen a génne ngeen dem ko ñu dugalaat leen ci biir xoolal loolu. loolu la la moom juge bi loolu la toog. daa ne waa léegi garaawut signal bi nga dem tëdd toog xaar ma signé ko ñëw nagam lool nag. waa parce lekk yi ñu andi lépp mënatuñ koo lekk. Mhm. nagam na xalaat na mhm. guddi gu njëkk gi ñuy def ci rëbës. après noonu nag ñu toogee ba 18 heures ñu takkal ñu mënoon di génn ñun ñi war a dem rëbës. Mhm. ñu génn ñu ñu war a dem recours de parquet jëm recours de parquet. d'accord mais dama génn yem ci sama rakk bi. billaahi wallaahi wataalaahi dama génn yem ci moom mu xool ma ñu takkal ma mën xam nga dara gën tamit as gor nga takkal ko mën a koo xam si nii. mooy loolu. maanaam soo nekk sa famille ñun xam ci ak njàmbaar tey mosuñu laa def lu métti. Mhm. tey ma génn yem sama rakk ñu takkal ma mënoot après nag mel sama tànki dañ koo damm. foofu nga sentiré yëg yëg yëg bu foofu nag foofu nag laa sentiré nag tumuraanke nag après nag noonu ma jooy ba sonn oto bi départ booy bi daw topp ci ne ma fan la ma ne ko 100 mu jàpp ci oom yi sëgg wóor na alxuraan. moment bu triste la affaire bu métti. c'est pas possible. moment moment moment bu trist la c'est vrai que nit ku nekk rek war nga war nga xalaat ni loolu dafa tiis parce que souvent aussi dafa bari vraiment ci ndaw ñi ñoo xam ni loolu ci film yi rek lañ koy lañ koy gisee waxuma sax vraiment brutalisé bi nga xamee ni am na waaye dafa am loo xam ni psychologiquement mën na mën na jàpp ndaw ci dundam jàpp xele buy manifester wala xele bu nekk ci réewam ak lu mënti def je pense que du yoon xëy na yenn brutal yi du ci am rawatina loo xam ni aussi dafay nekk dafay nekk benn benn vraiment benn euh, loo xam ni psychologiquement mën na ko impacter bu baax a baax Cheikh loolu lu métti la mais yow daal foofu nga foofu nga amee yëg-yëg yëg-yëgu mbetteel ak métit moment bi la sa frère toppee daw ba mënul jot oto gendarme bi mu sëgg jàpp ay oomam billaahi wallaahi wa taalaahi mhm. wóor na alxuraan ak mujj na sama yaay ji sax yërëm ma ko boobi laa yërëm saraka nga doon xalaat billaahi moom rek laa doon xalaat wóor na alxuraan ak mu nekk moment bu tiis mais Euh, bi nga demee ba yegg rëbës nag yan heure nga fa yegg ak aussi ban akk yi nga amoon foofu. ñoo ngi egg rëbës après ay 18 heures. Mhm. ñu egg si ñu wàcc ñu oto yi. Mhm. takkal ñu mën a di ñu wàcc ñu dugal ñu ci benn roq. Mhm. bi ñu egsee ñu ñuy summi summi ku ba set. ay sëgg loola ŋaan loola saqat loola far force. saqat loola far force suñu ko ba set. Mhm. capp nga ne aha. d' accord loolu lay def loolu. loolu mhm. xam nga mooy première torture. defloo ñu ko. d' accord ñu àndoon ay kilifa nag. Mhm. ay kilifa lañ ci boole woon. wóor na yàlla ñu duñu ko def après nag ma boobu après ma tourné xool maanaam wat bi ñu wat. man gisuma sama bopp quoi mais gis naa gars yi wat bi ñu wat yi quoi après noonu ma xaw a woon nag di ree yi quoi. naa leen hee xool leen xool leen yi nar rek. Mhm. garde bi daan na yow de yaa ngi kaf di ree waa cey est xam nga néeg ba nga jëm soo soo ko xamoon di nga noonu. ma ne mhm. fu ma fu ma jëm na fa yàlla nekk. mais bi ñu egsee ba chambre 3 bi ñu ubbee bi ma taxay nii tànga tàngaayu odeur bi ñëw. odeur ak tàngaay bi bi nga sentir moment boobu rek. mu mhm. tijji na ma dugal ma dugg. muy chambre 3. muy chambre 3 yow kese ci ñi nekkoon ci oto bi wala am na ñeneen ñoo bokk. doon ak bokk naa ko bokk naa ko ki nga xam ne mooy suñu tëddefil bi ñu ne moom mooy suñu mm. mm. ko bokkal ak ñu ci biir. Mm-hmm. bi ñu dugalee ci biir. Mm-hmm. toog chef de chambre bi. toog ma toog ñu wax ma règlement néeg yi ak nii ak nii nangam ak nangam. Mm-hmm. am fuñ toog ndax mbooloo mu bari. lu la njëkk vraiment loo njëkk a maanaam lu njëkk lu la njëkk a marqué ci ci image bu désolant image bu ñaaw bi nga duggee chambre 3 lan nga njëkk a capté mentalement. non li ma njëkk a capté nag. Mhm. ndeysaan euh, bi ma duggee mhm. rek. xam nga mbooloo mi daal bari nan bari goo xam si nii maanaam mënoo koo kii quoi. gaa yi summee ko da ngay gis ko ñuul a ñuul a ñuul ba nga yaakaar ne kii këriñ la sangoo. c'est pas possible. wala daa ñuul ba mel na gaa yaakaar ne kii daa la sangoo. Hmm. wej wej wej wej mel na ay picc après ma toog sa chef de chambre bi homme de chambre bi wax ma ne ni may wax ma ne waa baax na ok après may xool fu ma toog léegi bi ñu toogee. d'accord baal ma yëkkati micro bi rek mu jege. bi toogee mhm. après gaan bi ma àndaloon ndeysaan moom it jaaxle trop. xam nga yooyu quoi mën a tàpp mhm. yàlla baax na. d'accord muñ nan muñ te delloo lépp ci yàlla sunu borom. Mhm. après ñu daa toog. mais loolu la muy ñas sama frère ndeysaan naan sur sur ma rentré chambre 3 bi ñu ma paquetee dama naaw laalu ma suuf mais sur booba dund naa loo xam te ni maanaam ci kii bi paquetage bi ci biir néeg bi mosuma ko dund sama àddina muy lan maanaam coono yi métti gis nga no bi ñu paquetee ni bañ tàncaloo mm-hmm. xam nga ci ko nekk ponkal mm-hmm. mm-hmm. bi ñu paquetee bañ tàncaloo te miinoon tëddaay bi non dama ni ñokket jóg toog taxaw laay def toog taxaw toog bu bët set sama bët yi dajewul. c'est pas possible. suur boobu kuuru neuf heures lañ am. Mhm. mag génn ci laa gis ay ñoom Lamine gaa yooyu. d'accord après ñu toog di waxtaan. gars yi di ñu delloosi di ñu delloosi ba ñu mën a nag. d' accord nekk benn ci biir. ngeen nekk benn d' accord très bien alors euh, nga dund li nga xam ne mooy paquetage mais ndax ndax bu weesoo paquetage bi parce que damay dégg ñu ne am na ay feebar yoo xam ne day dal nit ci kaso bi am ay feebar yoo xam ne feebaru aw la aw awra laak yu demee noonu ndax yooyu dund nga ko fa wala wala jot nga ko gis fi nga nekkoon. Hmm. allahu akbar. sama frère bi ma lay wax. Mhm. jour jour boobu sama màggal Tuubaa la jóge ñëw seet sama hmm. bi mu dikkee bi mu xoolee sama kanam dafa yuuxu fi mu toog ci weer yi dama ko doon nëbbu sax ndax ma jëlee appareil bi ma mel ni ku sëgg nii di kii quoi hmm, mu xool yër hmm. xam nga maanaam il faut ñu xool la bi mu xoolee gis sama kanam gi toog naa deux mois mënu ma sol mu ndax ay taab mu ne ma eh Cheikh lii lan la ma ne ko non lii feebaru kaso la dara mu ne ma non tiit wóor na yàlla mais après bi mu génnee moom dégg naa da doon jooy après woo sama yaay wax ko sama yaay mi ngi tubaab sama yaay bi ma ko waxee mu ne ma suur booba sun añ bi ñu taaj. kenn lekku ko. moom lekkut. d'accord sama mag bu jigéen lekkut sama jarbaat lekkut ko gën a ndaw samay jarbaat laaluñu jour boobu añ boobu noonu lañ ko araamalee. est euh, beneen bi feebaru euh, awra. Mhm. man dama naa ba ya ba yaakaar man ñàkk naa sama yos. barki alxuraanu karim ak yàlla bu ma tekk ci àddina. lu tax loolu. day def ay taab. Hmm. ay taab lay def di ko def di ko def di ko def di ko ba fees ko dell les taab yi day bënn. est-ce que man toog. di ko hmm. bëttal saa boobu di ko coppati di xëcc. muy bëtt. Hmm. léegi un ñu ne ma gars ne ma omo baax na ci. après ma génn kuur. jël omo dem. dama ko ko bombe affaire rocce ko ba xong coyu mel na maanaam. tànk xar boo fees. Mm. boo fees ba mu jeex noonu la mel. gustuma ci dara loo xam ci ni daal nekk na lu baax. ma def ci parfum taxaw di yuux affaire bi néew bët. mooy loolu. après ci laa ñëwee saa su ma ñëwee ci infirmière bi. Mm-hmm. waa ji ay ñaari doom la may jox. benn doom ñetti doom affaire yi dem ba sàppi ma. un nag ma ren ay infirmière nag ba am ko nag waaxu nag bi may dugg damaa damaa yéeg. Mm-hmm. bi ma egsee rek dugg ne ko mu ne ma lan la ma ne ko feebar bu ñu naan toxoro moo ma sonal sama affaire yëpp dafa neewi mm, mm, mm, dagg mu yëkkati doom yi jox ma ma puus ko ko ne ko non doom yi laalu ma ko saa yi da may faj daanu sumee tubéy ji wan ko mu taxaw dar gémmañ ci mm-hmm. ci la ko téye moom pop sol ay gaa faj ko ci ñaari fan nag ci la ko faj. d'accord affaire bi commencé di deñ ce qui veut dire ni boo révolté wul woon pour ñu faj la dañuy continuer di la jox ay garab d'accord mais tamit beneen bi li ci gën a yem mooy da ngay dem dem ba dootoo mën a toog ta ay taab. Hmm. fii taab sa toogukaay yeeg yooyu di am ay taab. waaw hmm. am ay taab ay hmm. picc. ngay wokk muy dagg da dem ba sa wey di duy. c'est di duy. loolu loolu benn gàmbee bu fa nekk naan bul ŋaañ soo ŋaañee da ngay gaañoo bul ŋaañ. mais da ngay jékki-jékki rek soo nee xaas. affaire yi der bi dalay topp. nga jàpp coppati wàcc. wallahi suñ loxo yi nii da ngay dem a gis nga affaire yi. d' accord da ngay dem a dem a ba affaire yi. ba yi kii d' accord d' accord mais sadik laa ci su ma nee nii bës mu bënn. su mm. dellusiwaatee dama naan ko nii. c' est coppati der bi est-ce que. ngelaw lu ëpp ko mu deñ d'accord très bien alors Cheikh Fall moom la seen bés di am ak jotaay mais Cheikh bëgg naa aussi nga wax ma dégg naa am na beneen difficulté bokk na ci yi fa gën a jafe mooy léeg-léeg ngeen soxla ndox war a dem wuti ndox ak yu demee noonu man nga ma expliquer naka ngeen daan def léeg-léeg ba ndox ngeen koy. am waaw maa ngi nuyu nag directeur bi. Hmm. ak ay ak ay adjoint ñu baax lañu wax dëgg yàlla. Hmm. directeur bu bees boobu. di nekk rëbës. waaw bi nekk rëbës directeur bi maa ngi ko nuyu bu baax naa dina ma seetaan. Hmm. maa ngi ko bu baax jàmbaar la kooku yàlla na ko yàlla dolli. amiin jàmm. moom bi mu ñëwee avant muy ñëw dañ daan toog deux semaine duñu am ndox wóor na alxuraanu karim digg biron yi ndox mhm. ndoxu un litre yi ni digg biron soo ko fa yoree jamaa nga yor mhm. man toog naa fa deux jours naanu ma hmm? barki alxuraanu karim toog naa fa ñaari fan naanu ma ci laa dawee dem ci chambre yu ndaw yi fekk fa euh, suñ benn waaye ki ñu ndaw woon mhm. moom jurumay tudd turam ma di ne ko sa naanu ma fan yi mu daal di xel ci ndox Ivan butéel jox ma ko fi ma taxaw laa taxaw jolu ko dama ko jolu bay xeexet mu dolli waat ma ma waat ko. Mhm. sama biir bi commencé métti ma dem toog mais directeur bi mu ñëwee nag. Mhm. après dugg Samb waxtaan ak ñun. ki la fi ndool nii maanaam rëbës fi ndool sooy génn moom macha allah rëbën yëpp a ngay xel. amatul leen ah, d'accord waaw am ndox. Mhm. mais nag rëbës état bii. li ko fi dese na gën a jàppale waa rëbës. loolu laa koy ñaan. Mhm. ndax loolu jàmm yàlla la. d'accord waay c'est clair. ñaawtee fi mu fi def sunu mhm. borom mën na ko koo jéggal. su jàppale waa Rëbës. d'accord dooleel directeur ba fa nekk. Mhm. beneen bi mooy gouvernement bi ñëw moom. xam naa ci kàttanu yàlla ci ñun lay doon. noonu loolu moom dañ koy xeex yi incha allah waaw d' accord très bien alors bëgg naa nga wax ma un petit peu aussi nekkuñu parce que ñi ñu jàppoon ci ay manifestants ñëpp tuumaal leen ni Pastef ci lañ bokk ak yu demee noonu bari nañu euh, seen nekkin yéen ñi ñu doon tuumaal waa Pastef naka la la demee woon ci biir kaso bi. non nekkin bu rafet nag El lu Loum maa ngi koy nuyu. Mhm. heure bi moo daan defar cere ji sekki boole sotti meewam ñëw tegal ñu lekk. Hmm. wallahi muy nit ku baax. kooku waa Pastef ñun waa Pastef laay wax nañ ko gën a jàpp bu baax. Mhm. maire de Bilal Diatta. maa ngi koy ñaanal moom mu génn. Mouhamed Bilal Diatta waaw sama xarit la. moom it maa ngi koy ñaanal ko encouragé waay kooku kooku la ma def. ndeysaan ku baax nit ku baax ku xam social. Euh, kii Jamil Sagna. noonu tamit maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. ndax ñoom maanaam dañ ma daan conseil ci biir kaso bi di waxtaan ak man. Euh, nit dof moom it maa ngi koy nuyu bu baax. moom it daan ngeen gisee rëbës yu bari d'accord. lu ci ëpp su ma daan génn cours nii moom muy dem euh, kii visite. Mhm. damay taxaw di ñuy waxtaan lu yàgg yàgg yàgg. Abdou Aziz Niang nan bàyyi jàmbur. ak Bilal Diatou aussi ma lancé benn message maa ngi jot information ni moom it ba léegi jamono ji euh, guñ ko. ñu bari jàpp ni moom Bilal Diatou Mouhamed Bilal jaata moom it maa ngi lancé message message boo xam ni maa ngi koy lancé parce que ñu bari jàpp nañu ni logique la comme jàppoon nañu ko ci coowal politique muy homme politique xëy na jaadu woon nañu bàyyi ko aussi. non Bilal. Mhm. Bilal dinañ ko bàyyi. incha allah te dañ ko war a bàyyi tamit te dinañ ko bàyyi. d'accord te man damay wax ne. Mhm. Bilal Bilal Diatta moom mun ta des ci kaso bi ñun ñuy des ci kaso bi ñun ñun ñuy génn di tambaamlu ci biti. non non suñ bàyyi ñëpp dañ koy bàyyi. incha allah Bilal kombaam sama komba la. d'accord wóor na alxuraanu karim dañuy bàyyi jàmbur. d'accord alors fi ma jeexalee ban yëg-yëg nga am fi mu toll nii ngay ndaw say bareegul nga daan liggéey liggéeyatoo sa état teg la lu métti jàpp la tëj la kaso lu mat juróom-ñaari weer xëy na li nga war a soxlawoo ci sa famille ak li ngay soxla ci sa dund lépp ñu xañ la ko noo dundee métit boobu mais aussi ban message nga bëgg a jëmale ci li nga xamee ne état bi teg na la ko. di sant yàlla bu baax nag. Mhm. di sant yàlla di sant samay waa samay waajur. Mhm. di sant sunu waa muy kër gii nii. Mhm. tamit di sant waa tuubaa ñëpp. di sant waa Darou Salaam ndax jàppale na moom bu baax a baax a baax a baax ndax ku la jàpp rek da koy wax. absolument waaw di sant sama benn xarit bu naan maam Gow di sant ñi toog. Mhm. Fall sama frère bee. moo Diouf euh, Maguette Fall. mii ñoom ñëpp Fallou Ndiaye kër gi sëriñ mu ndaw ba ci sama grand bi sëñ Mbacke njaay borom kër gi xarit Fall maam Fatou. ñépp sama yaay yi ñoom ñëpp maa leen di sant bu baax di leen gërëm waa Bawol gépp nag maa leen sant. ndax depuis keroog ma ñëwee ba léegi téléphone bi du tegg ko samay nopp. te téléphone bi du sama téléphone sama téléphone jabaru mag la. Alla Ndiaye. Mm-hmm. di leen ziare euh, di wax ne état bi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla nekk nañ cuune torop ndax ndaw su toll ci liggéey bëgg réewam fonk ko di xeex ngir réew mi jëm kanam kooku boo ko jàppee war ngaa toog waxtaan ak moom. soo ko toogee waxtaan ak moom. Mhm. dana tegal ay conditions. mais ndaw yi amuñu xëy amuñu ngont rëbës gi ay ay booy dañu fay fekk loo def ñu ne dañ doon jaay yàmbaa su ma ne booy bàyyi leen yàmbaa ji booy xool leen kaso bi ni ñu mel ñu ne dëkk bi amul dara soo liggéey Macky Sall jàpp dugal ci kaso bi. Mhm. soo di liggéey Macky Sall jàpp dugal ci kaso bi kon dañuy jaay yàmbaa dañuy jaayantu yàmbaa wóor na alxuraanu karim mais li ko dese ci ngorom gi na jàppale sënës bi. Mhm. jaamu ci yàlla man nag sama wàll. jullit laa. Mhm. xañ na man dinaa ko baal duma ko topp dara. dinaa ko baal duma ko topp mhm, dara. Mhm. waaw waaye nag Macky Sall sonal nga nit ñi trop. gàddul nga nit ñi àqu trop. sa waa kër sonal nit ñi gàddul na nit ñi ak Cheikh xaaral ma arrêté foofu balaa sa famille di tiit foog ni dañ lay jël si <laughs> c'est vrai que souvent dañuy bàyyi xel famille bi vraiment cri de cœur la rek euh, sénégalais yu bare bari ñu bari ci ndaw ñi tamit jàpp nañu ni dañ leen xañ xañ li nga xam ne mooy seen acte ba yoon daal di leen teg loxo Cheikh Fall kenn si ndaw yi ñu jàppoon la moom la seen bés doon am ak jotaay maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi Cheikh di la encourager di la ñaanal yàlla li yàlla yàlla na nekk loo xam ni